asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw fukki fan ak ñeent ci rabiul awal muy weeru gàmm di ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fanweeri fan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fukki ñeent bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy taatira wàccandiku moom gaaw mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla yàlla nag ma saxal ci ngëm yàlla yàlla nag ma def ma nekk ku jub tey jubale allahuma sabit nii wajaal nii haadiyan mahdiya allahuma sabit nii wajaal nii haadiyan mahdiya xadisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na man maay ëpp mbooloo mu ma topp ëllëg bis penc ci mbooleem yonent yi te it man maay kiy njëkk fëgg buntu ba jana xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ana aksaru al anbiyaai tabaan yowma alqiyaama wa ana awalu man yaqarau baabal janna rawaahu muslim waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi 5 heures 42 juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñaar tisbaar 13 heures 24 benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak ñeent tàkkusaan 16 heures 24 ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñeent timis 18 heures 59 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-ñeent gee 20 juróom-ñetti waxtu yu tegal fukki simili loolu mooy waxtu julli ci tuubaa ak li ko wër